wax Fat Fall Balla wala wax ci Fat euh, de Paris. moom naa la nuyu waa Sénégal waaw Dôme de nag moom pare nañu daal pare nañu bu yàgg. Uh-huh. ñu ko bisimilah àggale ko alhamdulilah rabbil alamin waa pare ñëpp pare nañu. pare pare nañu. gis nañu depuis presque waaw waaw te fi gëjoon naa ci événement bu ma ko defoon. waaw ci la ko goon dóom. Mhm. dóom ko ba mu mokk. Mhm. boobu léegi nag ñu nam ko lool nam ko xiif ko mar ko mhm. léegi nag mu war ñu fay bor mhm. ñu amel bor bu rëy mhm. moom lañu ñu nar a fay te bu samedi incha allah yëpp dinañ seet wax na ko sax ah nee na morceau loolu rek la ñuy waa Paris Italie Belgique Allemagne Suisse seen wàccaay ñu ñëw en masse jàppale seen doom seen rak seen xarit comme ñoom ñoo ko namoon di ko déclaré boobu léegi yàlla dagal na nag bis bi ñëw na ñu def ko ci jaam commencé ko ci jaam mu jeexal jaam mu am ci ndam mhm. mu continuer tourne bi mhm. tourne bi fii ba août la rek dara du yoon parce que bu jugee fii Italie bu jugee Paris Italie la jëm mhm. jugee Italie ñëwaat Paris fii ba août ñoo moom. maa li mu ne a ba wis ni. maa la wax loolu lu dund na ñëpp. pare ah. États-Unis mm-hmm. Amérique mm-hmm. Espagne fépp mm-hmm. ñëpp a ngi yaa ngi ñëw ñu def ko si jaam ñëpp nekk kaf foore jaam ak salaam loolu daal lañ soxla incha allah rendez nag ku teelul ñoo doo am foo toog mais na jeex na yàgg na bu yàgg a instant bi mais dinañ toog daal incha allah dinañ toog bu ko amul place dañuy taxaw ñu taxaw ci buntu bu déglu musique bi. Uh-huh. mu neex. xale bi ñëpp kontaan. incha allah di yéegu. maa ngi eh, sant bu baax. Eh, bi ñu bu ngeen déggee Abdou bi seen xel eh, ñu ngi la fekk fii tey ca Paris 18e. lan mooy sa taxawaay tey ci événement bi Wally ah, ñëw rek euh, accompagner boy bi ah suñu jeune frère nit ku baax la aussi bon ñu yàgg ànd ak ak moom ñu bokk ci njëkk a euh, promouvoir carrière am ci affaire showbiz bon bu xew loolu mel ni bon c'est normal ah ñu parce que sànq ñu ngi waxtaan euh, ci nit ñi njëkk waaw ku baax rek nit ku baax la quoi c'est c'est large dafa baax neexa a liggéeyal et moom la fi yàlla teg bon doo kenn du ja ànd ak moom di perte daal franchement ah non yàgg na nag parce que ñun ak Thione Seck la ah. ñun ay Boy Médina lañ bëggoon di génn guddi di baali Kilimanjaro voilà sur ce baali ñëw juddu nekk ci yoon bi ñu ñu fekk ci aussi li mu def nice aussi mu neex ah. voilà ñu àndak moom accompagner ko et muy ku neex a àndal ku ku ku reconnaissant ah ku fàttewu jëm waaw nit baax la. ñu ko tëggalee Italie ban euh, je pense 2012 ou 2013 tëgg nañ ba 2016. Mhm. chaque année ñu indi ko Italie voilà. bi ko tëggee pare ban satisfaction la non Wally boo ko tëggee boo ci defee dix quatre vingt ngay am <laughs> boo defee dix quatre vingt ngay am voilà. alors tey bu ñu Paris bi samedi te gëj na fi presque quatre ans. waaw waaw waaw tey nan ngeen koy ah, xam naa ne dina fi toj moom. waaw loolu xam naa ko dina fi toj def def nice. Mhm. voilà paree ngi fi di waaw jóge naa Italie ñëw jaar naa voilà ñëw fekk si wàll yi fii voilà noonu la demee mais xam nañ ne dina fi def. dina jël dóom def ko dóom quoi voilà. voilà dina ko defaat dóom. <laughs> ok di jëf ok jaajëf ok